da ngay gis ni maanaam su ko defee nit ñi dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy mel lu koy xëccoo daal voilà di ko njëkkante ak lu ne ñu di ko def daal voilà parce que boo xoolee ay bracelet ay bracelet daal la ñu génnee fii ñu ngi gis xam nga voilà euh, Diomaye Faye di ko takkal la Ousmane Sonko gis ngeen ko ci image bi voilà léegi nag bracelet yi euh, ñu ni benn mille francs lay jar benn mille francs lay jar daanaka mën naa ni bu ci million personne jëndee rek mooy 1 milliard. kan yaakaar naa ne eh, yaakaar naa ne kon loolu eh, eh, nekk na loo xam ne ni challenge bi ñi ko génne di waa kër Ousmane Sonko ka nekk na loo xam ne ni lu lu lu lu yéeme la tamit ndax benn 1000 francs te ñoom dañoo wax ni bracelet yi pour libérer askan wi voilà du bracelet boo xam ne ni pour tënk askan wi la voilà. Euh, amaana genre bracelet yi nag euh, ko xam euh, tourisme yi maanaam lu ci mel ne tubaab yi dañuy ñëw ci yi bu ñu fi ñëwee daanaka lu ci ëpp buñ demee marché Kermel ay marché Kermel xam nga ak ak Sandaga foofu noonu nga xam ni xam nga dañ fay jaay ay xeet bracelet yoo xam ne nii xam nga dafay aaree dafay dëppoo xam nga sunu drapeau Sénégal bi nga xam ne ñoom foofu la ñuy dem bu ñu demee dañuy eh, tonni ci bracelet yi ba sonn am na ñeen ñoom papa eh, yaay doom ñëpp dañuy am dañ koy yóbbu foofu nga xam ni kon bracelet yii nii buñ ko dugalee ci marché bi foofu eh, gëm naa ne dina dina dina dina dina jar voilà kon yaakaar naa ne daal lii lépp rek c'est parce rek Sénégal moo nu ñor daal voilà c'est parce que lim koy def ak lu tax mu di ko def ak lu tax xale yi di ko jënd ndax ay sénégalais doo koy jënd. ay bracelet la ay sénégalais koy jënd bracelet yooyu tamit ay sénégalais ko takk kan yaakaar naa ne réew mi lépp lu fi am rek victoire bi yëpp ci Sénégal gi lay delluwaat voilà kan bracelet yi sénégalais yi ñoo koy jënd ngir am fierté ci seen leader voilà euh, bracelet yi euh, yaakaar naa ni euh, am na ñoo xam ni duñ ko jënd waaye am na ñoo xam ne dinañ ko jënd ngir seen leader am na ñoo xam ne duñ ko jënd am na ñoo xam ne dinañ ko jënd am na ñoo xam sax bu loon nii ñoom dañuy jënd ay bracelet di ko takk surtout ñi nga xam dañuy def ay vacances affaire yooyu bu ñu ñëwee xam nga dañuy jënd ay ay bracelet di ko takk ak yooyu noonu voilà te boo xoolee bracelet euh, Ousmane Sonko bi vraiment wax dëgg yàlla euh, jël na euh, couleur boo xam ne dafay nuroog couleuru seen parti beeg ya ci aju daal voilà ndax vert bi danga nga ko ciy gis blanc bi da nga ko ciy gis voilà yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ni ñun dañ koy jàng.